docteur Macoumba Diouf ñu ngi lay nuyu. waaw soxna internet maa ngi lay fay. ñuy fàttali ne yow yaay directeur horticulture doonoon tamit directeur ISRA tey jii en tant que ancien directeur de ISRA ñu lay laajte te ndax gis nañu ne taw na ci yenn euh, mën nañ ne sax du taw bu fort jot naa am ay tepp-tepp ci yenn diwaan yi tey jii ndax yow ba nga fa nekkee jamono ji daan na fekk semence yi lépp yemb. <laughs> mboolem ñu mbokk sénégalais yi ñuy déglu ci ay soxnaam ci ay góoram ay gone ay mag euh, nuyu leen gërëm leen ci euh, teewlu bi maa ngi wax ni euh, tontu bi ci wàllu googu du mën a sori wala boog beneen wàll laay mën a sori li ko waral mooy fii ma nekk nii directeur horticulture laa wax nga ko te bi may nekk ISRA tamit wàllu ISRA nekkul joxe ay jiw wala boog jiw yi muy joxe nekkul ci yi la koy yóbbu moom li ñuy wax pré base maanaam jiw cosaan bi nga xam ne moom la ñuy fulee jiw wi béykat bi di kon loolu ak ci bokk mooy cëru ISRA. Mhm. kon du ñu daan dem ci béykat yi yéen jox jiw ñun ñuy jox béykat yi jiw ñun ñoon lañu daan jox jiw mhm. maanaam suñu jiw moom la ñuy ful ñaari yoon ba ñetti yoon mu joxe jiw yi nga xam ne moom la béykatu euh, euh, euh, mbadaxun bi di jot pour mën koo béy kooku mooy benn ñaareel bi mooy bu dee ci fi ñu toll ci atum ren mi am na direction bu yore loolu ci suñu ministère muy direction agriculture moom moo yore yóbbu jiw yi ci goxe gox yi xëy na boo ko wooyee seen njiit wala nga woo ministre bi ñoom dinañu mën a tontu ci loolu loolu li ma mën a wax daal loo nga xam ne seede naa ci mooy kay yi ñuy def pour mandargaal matuwaay yi ñuy jël pour jiw bi teel a yegg engrais bi teel a yegg matériel bi teel a yegg kayit yi ñuy xaatim di ko jox directeurs yi di ko jox gouverneurs yi di ko jox kuréelu béykat yi ci biir réew mi pour ñu yëg ne matuwaay yi la ministre bi jël moom ñu koy jàppale kayit yooyu moom jot naa ko te du tey laa ko jot jot naa ko fan yële ko ginnaaw su ma ma basé ci kayit yooyu daal damay jàpp ne euh, xanaa ndax yeggagum na wala yeggul laa mënta wax waaye matuwaay yi ndax jël nañ ko ci waxtu mën naa cee tontu naa kay ñuy wax lool foofu daal ci sa laaj bi foofu laa ci mën a yem. foofu nga ci mën a yem tey jii ndax euh, en tant que spécialiste Covid bi mën na am lu mu yàq am ay njeexital ci campagne agricole bi. waaw wax nga dëgg soxna si am na lu ci waroon a mën a indi comme jafe-jafe waaye suñu ne waroon a rek kon xanaa am na lu taxu mooy lam waroon a indi ci jafe-jafe ay la ci sama gis-gis man loola taxu na lu tax taxu na mooy ñaari jafe-jafe lu mu néew néew mënoon na ndaw ñi nga xam ni bu dañuy nooraani comme man Saalum laa dëkk xam naa phénomène bi bu baax ndax bëri na sama njaboot yoo xam ne bu nawet wàccee bu ñu góobee seen suuna deqi seen gerte dakkalte ko laaf ko bàcc ko ko jël nañ yoon wi dem ca ñaay wala Vallée Fleuve wala Tamba pour yëngu ji ci noor bi ci mbéyum noor kon xam nga ñooñu te ay ndaw lañu te dama faral di wax ne ñi ñooy béy nag mbéy mi buñ béyalul seen bopp it nag ñoom ak jigéen ñi mm-hmm. ñooy béy kon ñooñu amul bu ñu amoon jafe-jafe pour dellu seen tool ya mm-hmm. jafe-jafe dina am mm-hmm. waaye loolu xam nga ne dañ na yàgg na président jël na matuwaay pour ne ñooñu nañu leen yombalal seenub dellu kon xam nga jafe-jafe boobu taxu na beneen bi mu mun a indi mooy ñu war a yóbbu jiw yi engrais matériel bi ñu téyee dem di ak dikk bi wala boog wàññe ko diggante gox yi gox goxaan xam nga loolu bu doon teggiwuñu ko ñooñu buñ jotee kayit yi yéen wax fan lañu war a yóbbu ak waxtu wañ ko war a yóbbu it bu boobaa duñ ko mën a yóbbu waaye loolu teggi nañ ko bu yàgg kon xam nga boobu it kenn mënu ko koo tuddee jafe-jafe taxul nag ma mën laa wax fu ñu tollu yóbbu jiw yi ci yi ak matériel beeg engrais bi mhm. ndax du sama liggéey waaye daal mën naa la tontu ne matuwaay yi nguur gi waroon jël muy président de la république ak gouvernement pour que lu ci waay war a jëlee bërëb yóbbu ko ci beneen bërëb béykat yi mun koo jot mun koo jëfandikoo ak ku ci waay waroon a jógee dem feneen foo war a béy loolu yemm na kon jàpp naa ne man wax dëgg yàlla mënu maa tudd jafe-jafe ci mbas mi ak li mu àndal gisuma jafe-jafe ci ndorteelu nawet mhm. lii daal mën naa ko tontu ci sa ci sa laaj boobu sama laaj bi ah, mas nga doon tamit mas nga jiite ISRA tey ji bam la fa fekkee déggoon nga li ñu wax ne mooy problème bi am ci semence de qualité protégée tey jii si wàllum mbay ndax ISRA xoolaat na lii di capital semencier yu yenn variétés yi waaw fu ci toll nag euh, man mënu ma la ko wax waaye mun naa la wax bu doon waar la fa ma ko bàyyi woon loolu mën naa la ko wax euh, fa ma ko bàyyi woon ci 2013 fan laa ko bàyyi woon ci 2013 mooy bi président de la république jotee réew ci 2012 boobu ministre bu ñuy wax Amadou Kane moo fi nekkoon euh, déglu woon na ma ci comme moo yoroon ministre des finances kon moo ministre de agriculture bi fi nekkoon ci jamonoom ñu ko doon wax Benoît Sambou ba mu fa jógee bu ñuy wax Abdoulaye Bibi Baldé ñoom ñaar ñooñu daal ak nopp ñu pour gërëm ko sant ko ndax lañ ca xalaatoon ca jamono yooyu wax ko ko def koo jëfee lépp mu doonoon fekk ci ñun doonoon tiit ak ñun lan la defoon ci jamono boobu mooy mu ngi fekkoon enveloppe wala koppar yi nguur Sénégal ca jamono booba doon joxe pour ñu dekkal jiw mu ngi nekkoon téeméeri million ak fanweer ma wax président de la République ak gouvernement ne loolu néew na lool ci ku bëgg a dekkal jiw Sénégal ñu ne ma loolu lu mu laaj ñu wax leen juróomi milliards juróomi milliards pour ISRA na ca ak genn wàll pour direction agriculture ak yi nga xam ne ñooy ful jiw jëriñ pour ISRA lan la waroon a jëriñ mooy li ñuy wax station maanaam toolu ISRA yi ci goxee goxoxaan yi ñu def fa ay forage beesal leen yóbbu fa ak tracteur recruter ay nit maanaam toolu euh, buur ñu ma ko mën a nekkoon ci goxee goxoxaan yi fa lañ war a sosee jiw bi maanaam ndeyu jiw wi ndeyu jiw wi fa lañ ko war a génnee ndey bi nag mooy jur ñetti yoon ñetteelu doom bi moom la béykat bi di béy mu nekk qualité mu war cee am rendement bu mag booba euh, loolu lañ ma joxoon ma door liggéey ba pour ISRA am doole bu war a am boo fay jóg nag i xeetu jiw yi gën a am solo ci réew woon li ñuy wax prébase maanaam ndeyu jiw wa lam fa waccoon doyoon na loolu laa mën a wax ay koppar ya ma fa waccoon it ci war a liggéey loolu ci ay at doyoon na loolu laa fa wacc diggante 2013 ak léegi nag xaw ma lu ca ne xanaa boo woowee ka fa nekk tey moom xëy na dina la ko wax euh, kon daal euh, dama jàpp li li wolof ne lu fa jiw wa jógul lu fa jiw wa jeexul jógu fa loolu moo wane sore jiw boo benn wax ji li mu tekki mooy lu fa jiw wa mu jeex fa kon xanaa am ndey jiw jiwit ndey ja ndax ndey ja moo da euh, ay rendement kon loolu gëm naa ni président Dakar bi gis leer la ci am li ci gis bu leer la ci am li ci def mooy ku ci nekk ak waaram ndax ay waar la nag gëstu na ci am wàllam béykat yi ak euh, euh, comme na euh, privé ñi nga xam ne ful jiw mooy seen liggéey am ca seen wàll béykat yi am ca seen wàll dem na ca ba denc bi ñu war a denc jiw doomu jiw bi ñu jot war nañ ko mën a ful béy ñoom ñetti at yu teg nañ ko balaa ñoo wutaat beneen jiw bu bees kon li ñuy wax réserve personnelle maanaam denc sa jiw it maa ngi fàttali ne béykat bi la war ma fàttali ne li ñu soxla ci jiw bu dee téeméeri junni tonne la ak ñaar fukk muy Euh, muy ci gerte ëpp na ko sax loolu depuis temps colonial la woon war na yegg léegi ci téeméeri junni tonne ak fukki junni tonne dama ne euh, juróom fukki junni tonne rek moo ci war a maanaam ñetti xaaj yi benn xaaj bi rek moo ci war nguur gi di béy di jiw bu bees mais téeméeri junni yi dafa nekk jiw bu nekk li wax réserve personnelle mu baax bu mu jotoon mm-hmm. at mu nekk bu ko béyee daf cee war a lu mu denc pour at may ñëw mu jiyaat ko moom béykat mm-hmm. li ñuy wax réserve personnelle kon responsabilité bi dafa xaajoo diggante nguur gi ci sos jiw cosaan ak privé ci ful jiw boobu ak béykat bi ci dem ci jiw bi muy jot ñetti ak yu tegloo ginnaaw ba muy beesalaat jiw kon xam nga gis nga ne affaire jiw nekkul affaire nguur rek nguur rek opérateur rek uh-huh. nekkul affaire béykat rek uh-huh. waaye ñoom ñëpp ku ci nekk daf cee am wàll waaw d'accord acteurs yëpp ku ci nekk am na wàll tey jii ñu wax ci autosuffisance en riz mu gis ne soxal na dëkk bi lool ndax lu yomb la tey jii vu euh, suñuy euh, sol ak it euh, li nga xam ne moom lañu am comme matériel si waaw ndax lu yomb la euh, lu leer mooy tont bi mën naa gàtt euh, déedéet la waaye ndax lu mënta nekk la tont bi déedéet la mën naa ne ndax lu baax lu yomb sax am na man gëmuma ko kon tontu bi mooy jot suñu bopp ci wàllu ceeb ñu koy wax autosuffisance en riz ci tubaab maanaam ñor li góob denc ak di xiwloo ci ceeb lu doy suñu soxla loolu lu mën a nekk la fii nag laa ko teg mooy am nañ suufam ci njiwu mbéyum ceeb bi ñuy roose fële ca vale bu fleuve ca Ndarak Podor wax boobu dem ba ba Bakel ñuy wax vale am nañ fa lu mën a def loolu ci bassin de Lanambe mooy fii ci wetu fleuve Gambie euh, am nañ boo boole ñaar ñooñu ci mbéy ceeb ci roose wala mbéy ceeb ci ci lu mu niroog dee ci waxin mooy riz irrigué doole ji may nañu ko boo jëlee ceeb euh, ci mbéyum nawet wuute naag la amoon bu njëkk fi mu nekk ne am nañu variété yoo nga xam ne fi ngay béy gerte di fa béy suuna di fa béy basi ak mboq mën nga faa béy ceeb te loolu amuloon avant kon li ñuy wax riz pluvial kon xanaa mbéy ceeb tey mën nañ ko def fu ne ci waxin loolu amuloon ci ginnaaw kon muy beneen ñaareel bi loo ñetteel bi mooy am nañu saison saison mooy diir bi ñuy wax ci ñuy béy ceeb gi mën nañ ko béy noor mën nañ ko béy nawet am na ñuy variété yoo nga xam ne seen rendement mën na maye ñu ful ceeb ci hectare yu ndaw te am ca tonnage yu bari ñetteel ñeenteel bi wala juróomeel bi mooy ci wàllu équipement matériel bi ko war a deqi ñu koy wax ay moissonneuse bi ko war a bàcc ñu koy wax ay rizerie ak ci wàllu gunge ci wàllu engrais jiw loolu am na fi waaw soxna kon lan moo kon xam nga léegi baral mbir yi rek moo def loolu laa tuddee ci tubaab pragmatisme maanaam bu ñee bi ñuy gis dañoo bëgg lu ñu soxla ci wàllu céréale céréale mooy ceeb céréale na tuna céréale na mboq basi taaño céréale la nga xam ne moo gën a yaatu ci ñuy xewloo ci réew mi ñu am lu ëpp suñu soxla te loolu ndigal la bu président yëkkati ñu agriculture taxaw te liñ ci xam yoruñu loolu nag waaye liñ ci xam te liñ ci def fi ñu nii moom ministre bi ak équipe am leen <laughs> jëgal gëm nañ ne war nañoo ci loolu loolu daal mën nañu ko wax kon président Henri lu mën a nekk la bay jaay ceeb bitim réew sax lu mën a nekk la Euh, tey jii nga jiite horticulture tamit ñu ne moom mooy locomotive lii di PSE nan lañ ci nan lay demee. waaw loolu lu am la locomotive mooy bopp ci saxaar lii xëcc ci wagoor yi moom lañ tuddee locomotive mooy bopp saxaar bi wax tey ne horticulture mbayum noor mooy bopp saxaar bii xëcc ci wagon mbay ci Sénégal ku ko wax dina jafee nit weddi ndax loolu nekkul luy lu ñu fas yéene nekkul lu ñu naan nekkul jubluwaay pour ëllëg jëre lu am la ba pare ndax nekk bopp saxaar ci mbay weesuwul rendement yi ñu am ci hectare bu ne li ngay amee tonne wala lu ko yées ci ëpp lu ko yées ngay am ci hectare ci mbéyum nawet tewet gën dafay am fukki tonne ak juróom ba ci fanweeri tonne ci mbéyum noor kon kooku bopp saxaar la beneen bi mooy mbéyum wax mu ne la da koy béy noor mën ko béy nawet yow soxna si xam naa ne journaliste bi rek nga mën xam naa ne ku mën a euh, euh, nga war a doon damay béy xam nga ne légume ni mu amee léegi ci marché bi nawet wutee nag bu njëkk da daan manqué di seer lool xam naa ne dañuy dem marché kon xam nga li ma wax kon léegi mbéyum la jum mbéyum waxtu wu ne la beneen bi mooy njëkk li moo ëpp yeneen xeetu mbéy maanaam boo ko béyee liñ ci am ci kilo bi moo ëpp li a bi mooy li ciy yëngu ci wàllum xëy xëy yoo xam ne di nga ciy for dina sakkan ba jaral la nga toog ko di béy loolu boo jëlee benn hectare horticulture juróom nit juróom benn nit mën nañ cee yëngu te buñ na bu campagne ba jeexee bu ñu jaayee ku nekk sa bopp juróom benneel bi indi ci dooleel dund dund bu ñoŋ maanaam dund boo xam ne day xeex lompoñ day indi wérgu yaram loolu aussi légumes yi amul ci morom bu dee jaay si marché Sénégal ak ci bitim réew légumes yooyu ñoo ci mën kon xanaa soxna si euh, boo nee euh, mbéyum dër champion la ci Sénégal da ngay daal di wax dëgg tolluwaay bi it yéeme na kon sant nañ suñu borom waaye man li may wax mooy waratuñu tey nekk naan mbéyum dër dox na loolu wax bu yàqu la lan moo des li des mooy mbéyum dër fan la ñu war a mën a yóbbu nag comme doole ji am na suuf si des na climat bi mën na yóbbee waxtu wu ne Europe ñun ñoo gën a jege Europe ñoo gën a jege États-Unis bu dee ci train bu dee ci euh, suuf yoonu suuf bu dee ci bato bu dee ci avion jënd ci ñun yóbbu ci dëkk yooyu moo gën a jege te ñun ni ñu mën a ñorle ci xeetu mbéy yooyu réew yu bëri mënuñ koo ñorle kon ñun dañoo war a dàbbali niñ doon def parce que di président wax boo ñu te xalaat nag béy lu ñu dal ci suñuy dund kon suñu gis-gis dara woon comme am yu doy am ñu jàppale béykatu bëri ci ay machine ñu yokk li ñu doon béy rendement yi yokku qualité bi yokku fuñ ko denc yokku ñu jot suñu bopp ci wàllu légumes yi ëpp doole waaye surtout nag ñu am li ñu jaay bitim réew bitim réew tekkiwul rek libre échange économique nga xam ne milliards doomu aadama ak ñaar téeméeri millions ñoo fi yeewoo te jóge fii dem Burkina nekkul problème jóge fi yóbbu mbir Mali boo demoon Kayar gi euh, weer ci ginnaaw duñ fa fekk ay camion Mali ay camion euh, Gambie ñu jël ci pomme de terre xam nga loolu jafewul kon kon bu ñu ñorlee lu fu ñu ko jaay am na waaw comme bu ñu ko jaay am na bu ñu seet rek li ñu doy ci suñu soxla naan autosuffisance déedéet nañ produire lu ëpp suñu soxla pour dundee ko ak li ci def ñu mën koo jaay loolu la wax avantage comparatif réew mooy da nga xam ne yaa yaa ko mën ñeneen ñi yaa leen ci ëpp doole nga dem ci bu baax ba jeex comme ni ko xale di wax dem ci ba jeex jël ci le maximum lii nga jëriñoo li nga jaay ko mu mën laa indil doole kon daal ci wàllu euh, autosuffisance alimentaire wàllu koom-koom kenn dabuñu ci kon nañ gën a baral loolu weesu suñu soxla ci wàllu horticulture pour mu mën ñoo jëriñ ci wàllu koom-koom lii daal mooy li nga xam ne euh, bëggoon nañ ko wax te jàpp nañ ne mutuwaay yooyu la ministre bi nekk ndax loolu la président de la république santane xam nga président programme quinquennal mooy programme wax na ne nañ ko nañ ko taxawal pour jot suñu bopp ci wàllu dund yi gën a siiw réew mi loolu xam nga ne ministère de la ñu ngi koy liggéey kon pour ñu yegg foofa bokk na ci li ma wax nii jàpp naa ne daañu ko mandargaal jàpp naa loolu mhm. ànd ko nag ak partenaire du développement yëpp mhm. ak béykat yi nga xam ne ñoo fi def résultat yi ñuy sant yàlla ñun ñëpp docteur Macoumba Diouf bu noon nañu euh, bëggoon nañu gën a yaatal waxtaan wi ndax meerul gox nga waaye it bokk nga ci AMS waaye xam naa yoon yemul ci benn dinañ ñëwaat vers vous pour une plus grande si possible boo ñu ko accordé waaw waaw ginnaaw liy jëriñ réew mi ci ngeen sax Euh, yéen waa réew mi FM. Mhm. Euh, ci wetu askan wi ngeen sax nekk ko ci lu koy jëriñ yéen waa réew mi FM kon bu ngeen jàppee ne su ñu ay kaddu am na ci lu mën a jëriñ askan bi leen di déglu dinañu ubbeeku du am waxtu du am bés du am bërëb surtout ko jokkoo mën na am te gise du am kon ubbeeku nañ ci lu ngeen yaakaar ne rek buñ ca waxee ak yéen mu doon jëriñ ci askan bi. en tout cas merci beaucoup docteur Macoumba Diouf may fàttali euh, fàttali suñu auditeurs yi nii ñoo ngi doon dalal directeur de l'horticulture moom moo jiite woon tamit ISRA ci jamono doon tamit euh, meeru Latmingué merci beaucoup. avec des semoirs euh, euh, assaini des équipements assaini rek pour l'oignon pour la pomme de terre pour la carotte et cetera donc il faut que si